lii nag pare nañ ko pour fànq rek bépp jafe-jafe boo xam ne jot nañ ko faa gis. bërëb bi nag nekk na bërëb boo xam ne nag lu ñu jotoon a fànq la ci jeextali foo waaye comme niñ ko gisee nii nag kër yu bari fi mu toll nii nag ndox maa ngi koy jëlaat mu nekk bërëb boo xam ne ay téeméeri nit ñoo fa dëkkee lii nag moo tax ñi nga xam ne ñooy nguur gi ñoom nag ñu ngi ci diggante xeex boo xam ne dafa nekk ci diggante lii di neccoo ak tamit nit ñi seen dëkkuwaay ca bërëb booba. am na ñenn si ñu nga xam ne ñu nga dëkkee ca boor boobu ñoom tam ñu ngi jéem a profitaal waale ci waxtu wi nag daal di am ay mbayteef yoo xam ne ñu ngi ko bay si seen kër yooyu waaye nag gannaaw bi nga xamee ne nag daal dina wóor béréb ba pare ki nga xam ne mooy njiitu réew mi daal dina fesal ne béréb boobu nekkul béréb boo xam ne dëkkuwaay bu rafet la mu nekk dëkkuwaay boo xam ne nag dafa xaw a doy waar lool lii moo waraloon nag mu daal di oote ab relocation boo xam ne war nañ ko mën a def daal di toxal ñu nga xam nañu dëkkee ca boor yi nga xam ne seen kër yi ndox mi daf koy xaw a jël ca beneen boor Euh, doxalin boobu nag am na ay taxaw yu bari yoo xam ne amoon na ko waaye rek ki nga xam ne moo njiit réew mi am na ay seetlu boo xam ne defoon na ko ci wàllu tabaxi gota yi nga xam ne nekkoon na ci ab benn boor foofu ca KMC yi euh, fii nag ca kaw Johnson ci laxtaru Kunda euh, lim doon feneen rek mooy gota boobu noonu na ñàkkoon na ab xóot ak tamit ab kattan boo xam ne war na koo mun a am ci wàllu dëgër pour rekk mun a téye ndox mi nga xam ne moo war a jaar fii loolu moo taxoon nag ki nga xam ne mooy président bi moom nag daal di wane li nga xam ne mooy ñàkk mbégteem eh, ci tabax yooyu nga xam ne def nañ ko ci projet boobu ak tamit daal di wane li nga xam ne mooy problème yi maintenance boo xam ne am na ci suñu yoon fii ci réew mii leneen loo xam ne fesoon na ca doxalin boobu mooy nag ñi nga xam ne ñooy euh, ñu dëkkee ca boor boobu ak ñi nga xam ne ñoo amee wàllum jaay ak jënd ca boor boobu euh, seen wàllu yokk yokku ci li nga xam ne mooy set béréb boobu loolu nag nekk na loo xam ne lu ñu soxaloon la ak ñi nga xam ne tamit dañoo ñàkk li ñuy wax respect euh, pour nag municipal anti littering law bu ñu nee municipal anti littering law nag mooy luwaa boo xam ne dañ ko teg pour rek fexe nag képp koo xam ne yaa ngi sànni ci mbedd yi. Euh, mu am loo xam ne loi bi war na ko tegoo ak yow. Euh, bentee rek euh, ci kaw doxin boobu am na feneen fu nga xam ne jaaroon nañ fa nag muy nemasu euh, foofu nag ki nga xam ne mooy njiit réew mi gisaloon na boppam li nga xam ne mooy dëkkuwaay ñi nit ñi foofu noonu li demee nag ci wàllu seen yoon mu nekk xam ne lu ittee la nguuram gi demoon na nag ba ci beneen boor fi nga xam ne moo egg si jeexali KMC ak West Coast Region foofu nag daal di woon na oote li nga xam ne mooy ab set setal boo xam ne dinañ ko dafa def pour rek euh, fexe fànq foofu ñuy def seen tuureek ay mbalit euh, setal ko ci nu mu war a war sunu mu waree loolu nag comme ni mu ko waxalee woon rek mooy ne fas yéene nañ faa taxawal ab marché. waaye balaa loolu rek si euh, kaw yoon woowu mi nga xam ne moo jokkale lii di Latrikunda ak Sukuta euh, am na ay pax ak ay euh, yàqu-yàqu yoo xam ne ñu nga am ca yoon woowu lu mu fa waxoon rek mooy ñu fexe nag nu ñuy jëlee li nga xam ne mooy xeer yu ñuul yi ngeen xamee ci gravel ak tamit xeer yu xonq pour fexe rek nuñ ko fattee su ko defee rek mu gën a mun a yaxaanal dem ak ñëw bi ca bërëb booba li nga xam ne moom la ñuy gën a xamee ci disaster mitigation muy nag naka la ñuy fexee rek aar lépp li nga xam ne mooy yàqu-yàqu fi ci réew mi nekk na loo xam ne lu nekk ci xoli nguuram la moo waral nag kii di njiiti réew mi président Jammeh moom nag emul rek pour toog di xaar ñi nga xam ne ñooy experts yi pour ñu daal di ko xelal waaye nag jógoon na taxaw temm gisal boppam li nga xam ne moo nekk di xew ci réew mi li nag lu muy firndeel mooy rek ne képp koo xam ne rek yaa ngi ci réew mi yow tamit li itteel na la pour rek ñu fexe naka la ñuy aaree suñu dëkk ak yàqu-yàqu yi nga xam ne moo fi am roxi bi tey jamono ji ñaari fan yi taw yi nga xam ne moo teglante ci ay yi ñu génn ni di alxamis ak ajuma bi nga xam ne moom la taw bu rëy bi yàq fii ci kombo bi ñu nekk nii waaye naka xibaar yi nga xam ne moom la ñoo uh, def nii ñu ngi seet naka birij bi nga xam ne moo jokkale kuutu ak yooni manjaay yàqu la bi nga xam ne moom la fa def ba nga xam ne dem ak dikka bi jafe na loolu ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jëfandoo yoon boobu noonu Tijaan Jaane ak xibaar yooyu ñu bari dañ yaakaar ne bu fekkee ne muus naa am tamit lu géej a am la ñaari fan yu teglante yoo xam ne maam yàlla baa ngi sotti taw gi e mu doon loo xam ne nag e, mu ngi e, commencé woon ni ki alxamis duga be li nga xam ne moom mooy àjjuma si mooy maanaam baajul ak Serekunda ak li ko wóor tax na nag ba kër yu bari daanaka ndox bi daf leen sonal te am na ay béréb yoo xam ne sax daanaka ñoom seen dëkkuwaay yëpp dañu mujjee daanu bokka na ci e, ci bridge boo xam ne moom moo nekka e, kóotu foofu diggante kóotu ak manjaay ñi nga xam ne ñoom ñooy borom moto yi e, jamono yi dootuñ fa mun a jaar ndaxte suuf si nga xam ne mbete béréb bi nga xam ne moom moo xaw a sës rëkk si bridge boobu noonu ne foofu dafa maaba def fa pax bu rëy ba tax na jamono yi moto diggante kóotu ak manjaay daanaka dañ ko taxawal mais gannaaw loolu et yaaxa-yaaxa bi nga xam ne moom moo amoon rawatina nag ci biir ak KMC mbootaay bi nga xam ne ñoom lañu ñu pour ñuy mën a seetu yaaxa-yaaxa ah, yu mel noonu eh, di disaster task force ne jamono ju nekk ànd ak ki nga xam ne moom mooy am meeyo KMC ne ñu ngi dem nag di nemmeeku béréb yi ñu xam ne eh, ndox bi eh, daanaka indi na fa ay tolof tolof ndaxte li nga xam ne mooy seen alal ak seen i dëkkuwaay ne ndox bi ah, daanaka duggal na si seen biir kër yi e, tombal na yi nga xam ne mooy seen i bagage ñi ah, ñàkk ci loo xam ne e, mooy seeni ay jumtuwaay. bi mu nii dama wax suma tiim bi yëpp ne nañ leen génn because taw bi daf dee yoon yee loolu soo bu génnee gis nañ sax ci highway bi ay guy yu daanu nekk ci tali bi biñ nekkee loolu di ko génnee rek xam nga nit nit la. mo lolou lañu gëna a mu am kuma ma mu ne ma ah, ministre am bridge bu daanu Manjai bridge bi da ngeen wara dem séti ko fekk bi mo wax lolou suma directeur NRA Mr Senghor mom tam call na ma wax ma li bridge bi si bopam fañ taxaw ni bridge bi si bopam amul problème. bridge bi moy gis nga concrete bi fa nit ñi taxaw moy bridge bi ya? Ah. fi du bridge bi So ndox bi doon duga si ron bridge bi. ak diggante yoon bi yoon bi tafu ak bridge bi moo am problème dafa am pax bu nekk fële boo xam ne fala ndox bi duggee gisuloo ndox bi ni moo dawee moo yóbbu suuf si nekk si ron yoon bi mu lekk ko ba pax yi génn mu ñëwul wàcca waaye bridge bi si boppam as fi ñu taxaw ne gis nga amaguñ problème dinañ ko assess nag seet su ndox bi wàññee ko ñu seet na concrete bi si ron bridge bi si boppam am na problème waa fi ñu taxaw ne mun naa laa wax ne gisuma benn problème si bridge bi angum léegi nag kilifa yi tamit ba tey